procureur général Ibrahima Bakhoum dafa def une conférence de presse aborder dossier yu bari bari mais mu am particulièrement deux dossiers yoo xam ne dafa attirer suñu attention euh, benn bi euh, mooy concernant euh, accusation bi Ousmane ko porté contre le pouvoir ne dañ ko doon jéem a faagaagal mm-hmm. procureur wax ci ba ñu bari jàpp ne wax bi jéggi na dayo am na violation du secret médical beneen bi procureur wax ñu waxu commando spécial boo xam ne euh, euh, dañ doon mébét euh, attaqué ay personnalités politique ay autorités religieuses ay acteurs de la de la de la de la de la presse Ousmane Sonko démb tontu na ko nee na li ñu wax yépp amul ñenn ñu bari ñu far ci Ousmane Sonko ak ñi waa Yewwi Askan dañoo jàpp ne da ngeen nekkaat di lancer waat beneen instrument de manipulation Euh, à des fins politiques maanaam loolu ñu wax noonu yëpp ak démonstration yi ñu def yooyu yëpp euh, bu ñu yeggee ca cappaandaw ba l'objectif c'est de trouver le moyen euh, euh, de de de d'écarter Ousmane Sonko euh, d'écarter Pastef du du du jeu euh, politique. mais Maïmouna la plupart une bonne partie li fi xew ci biir réew mi du ñuy tontu de ñiy poser question ñooy jaxase. ah duñ jaxase. li nga dégg ñu wax ko démb ki ko wax bi muy dugg école di jàng choisir d'être magistrat am ses diplômé yàlla dogal mu nekk procureur dem di servir la nation sénégalaise jamono yooyu daf ma leer ne xamul Macky Sall Ibrahima Bakhoum ak yeneen procureur Macky Sall mii nekk président la taxuñu woon ñu jàng école dañoo jàng pour servir seen réew ñoom ñu ko wax aussi ce sont attention jànguma droit dama xam ne am na lu pouvoir bi bi bi bi pouvoir bi magistrat yor ci biir réew loolu jox ma ko ko joxoo ko ko joxu ko boppam tamit s'il n'est plus magistrat il n'a plus ces droits là ça veut dire que joxu ko boppam magistrat bi lañ ko jox fonction bi lañ ko jox moom moo ko wax c'est pas Farba Ngom qui a une appartenance politique de Macky Sall qui est qui est dans l'APR qui parle aux Sénégalais c'est pas un gars comme Ablaye Seydou Sow c'est pas un gars comme Cheikh Oumar Anne qui sont mes amis ñoom ñoo jël kàddu wax c'est pas un gars comme Ablaye Daouda Diallo qu'on dit que directeur cabinet président c'est pas un gars comme Pape c'est un magistrat un procureur qui a dit parler les enquêtes c'est destiné à qui bu ñu defaree enquête seen enquête ba pare. procureur lañ koy jébbal procureur lañ koy jébbal. li muy wax noonu dafa am jaar-jaar. procureur avant mu détenir l'enquête sax di ubbi enquête ci boppam dafa fu muy jaar. Hmm. yaakaar naa ko. Hmm. effectivement kon moom bi bi jëlee décision face à face à face à l'opinion wax dem une conférence de presse suivie par na euh, l'opinion nationale et internationale xam nga ne loolu boo taxawee jël kàddu say tontu doo ko wékk fen lu dul procureur xam na ma bi mu feebaree sama jabar moo ko doon toggal ça n'a rien à avec réew. suñu bokkee ndey ak bàyyi tamit s'il y a des bu amee da nga koy nangu gis nga wallahi lazim man je suis pas à la place de Ousmane Sonko oui mais ni da ngay am cohérence sos politique dafa am yoon Macky Sall mii nekk président de la République est-ce qu'il a passé par la violence laa ñaal jamais du tout on peut président gis nga loolu mbiru yàlla la Maymuna mii toog tey créer cette TV nekk jigéen reyante xeex ba egsi fi mu egsi ku mu neex ku mu naqari loolu la yàlla tudd kenn mënu ci dara nit lépp looy dox di ko def boole ci mbir suñu borom ak volon ak ginnaaw mbir suñu borom volonté sénégalais réew procureur moo wax du man bu Farba Ngom de <laughs> man duma ma procureur te du man maa wax et ki ko wax aussi c'est politique Ibrahima Bakhoum ban appartenance politique la am Sénégal dans aucun parti il ne milite pas il est sénégalais il est il est mais nag confiance du chef de l'État la am nommé ko procureur moom moo koy nommé par décret loolu bi bi bi bi Macky Sall bi am loolu Ibrahima mu ngi doog a fallu comme étant procureur ñaata procureur a fi jaar moom moo wax du man créer un Sénat di manipuler opinion. di créer ay naan ay am dafa am ay affaire de bombe yu ñuy créer tu peux pas imaginer ça munoo xam nga loolu su doon Farba Ngom moo ko wax bu may pare ni may naan kii li muy wax du dëgg vrai ou faux mais le procureur ni ko wax indi ci ay preuves yi joxe ci ay wax yoo xam ne ni boo ko weddee te indi woo leneen lu bokkut ak loolu ça veut li muy wax c'est confirmé mooy dëgg xam nga man duma enquêteur duma procureur li muy wax nii wa wallaahi lazim ñoo ko doo ni nga ko déggee taxaw jàkkaarloo conférence de presse man sax xooluma conférence de presse parce que bi ñu koy def maa ngi nelaw bi ma jógee démb si ngoon ba léegi sax dégluwuma yëg naa rek lii ak lii comme ni ma ko déggee ba léegi seet ak waxtu yàlla ba léegi seetaanuma li procureur wax mais boo déggee lee faits la da ngay tiit di ragal mais nag. yow ragal nga. parce que yow moom. Euh, moom tu es ciblé de. juddu moom fu ragal di juddu boo ma ci xeex politique. di bëgg daaneel Macky Sall da ngaa tardel sa bopp ba bañoon ma cible sax moo la moo moo war ci yow parce que man cible naa sama bopp j'ai déjà pris position j'ai déjà pris position loolu c'est que pour dire que ne dama war a tiital Sénégalais yi manipuler opinion bi créer ay sos ce qui s'est passé hier ak avant-hier les pacifiens qui étaient membres fondateurs de PASTEF qui sont France ak partout Suisse qui sont venus pour créer Euh, kii de patriote xaw ma au niveau du Sénégal ils ont dénoncé des choses du man maa ko wax li procureur du man maa ko wax man dama am appartenance politique cible boo yor ci wàllu combat politique face à face de Macky Sall tardel nga sa bopp parce que je me suis ciblé moi-même j'ai pris position je suis avec Macky et puis encore quand il fait de la politique ñaari mbir la c'est comme l'armée on ne baisse jamais les bras bu ne da nga ragal bàyyi loolu du sa arène man dépassé naa fi may ragalee ci wàllu politique. waaye politique politique dafa laajte élégance pourquoi en politique ñuy dem ba un adversaire euh, Ousmane Sonko di soupçonné dafa am tentative d'assassinat. mais loolu xam nga loolu manipulation la la manipulation c'est pas moi qui l'a fait xam nga sénégalais yi au fur et à mesure ñuy gën découvrir la manipulation bu ñu demee ba convoqué docteur clinique bi mu en hospitalisé woon ak tout ce qui s'est passé ñu ñu jàpp les maires qui sont là-bas de ñu indi leen. ça a été bien creusé enquête boobu est-ce que man fekke naa ko wala yëg naa ci dara procureur mi ko wax kay am na fi mu ko wékk ban intérêt la am ban intérêt la am wax ci loo xam ne ne lii wax ci enquête bi nii la demee joxe les détails alors que les faits ne sont pas comme ça man retour la ci am il continuera à être procureur même après le pouvoir de Macky Sall il sera là à procureur donc li muy wax nii man fekkiwuma enquête xawma enquête mais je sais que li bi muy wax ciblé wul Sonko ciblé wul pour faire plaisir au pouvoir te ku xam Ibrahima Bakhoum ku ne xam ne borom fulal. alors euh... il n'est pas facile à être contrôlé nit la koo xam ne ne buy wax dara sénégal yi ak akulaayta moo tax muy wax. alors et puis et réponse d'Ousmane Sonko c'est quoi du dëgg benn nga naan man bi muy feebaree sama jabar moo ko doon yóbbul añ walla reer. non dafa ne bi bon. non c'est-à-dire que manque nekk homme d'État il y du loolu mooy réponse am kàddu boo dégg dafa am réponse man bu ñu ma jiiñee dara dëgg la wàllu dëgg ci loolu laay répondre mais je pas être laa di raconter bi bu feebaree sama jabar moo ko doon yóbbul añ moo ko doon yóbbu reer boo koy wax ba pare Sénégal yi xew génn leen defi mars comme aujourd'hui demee génn leen defi mars sans autorisation et beaucoup la kàddam yoo xam ne def ko daan wax boo amee kàddu yoo xam ne ni euh, may munu kaddu Ousmane Sonko lan nga ñu bëgg a proposer mooy li mu doon wax ci temps euh, problème PDS APR. déedéet. lan lan nga ñuy la waaw mais lu nekk question de contexte la. déglu xëy na bii nii. waaw déglu ñu ko woon. question de contexte la. question de contexte la ah non question de contexte la. kon waxoowaat amu fi. non waaw déglul nag may mun a. dafa war a am ci politique nag suñu humanisé. dégg la. Ousmane Sonko damay dem di xeex di wàcc mbedd bi di tere Sénégal yi di dox demal gori demal bayi eh, déglu rek. non euh, euh, euh, il faut ñu avancer il faut ñu avancer. question de contexte la alors. man am naa ay def loo xam ne mën ngaa non on connaît. waaw déglu lii on a suivi. waaw mais may ma déglu lii. on bon on on on connaît cette. yaa ngi <laughs> maa ko wax mais mais c'est une question de contexte aussi. am na ah, leneen loo xam ne su ma ko tegalee fii yow mi moom xam naa ni ni sa xol mel da ngay xam. <laughs> je te jure. <laughs> alors Farba. parce que on peut être un homme politique. mën nga dem defar sa ndigg Ousmane Sonko su muusoon tuuti xam li yàlla dogal mën na continuer di xeex son combat mais pas à cette façon su muusoon tuuti parce que xam na ne sénégalais yi ñenn ñi ko topp. du xaalis moo tax mu topp ko mais dafa am fu muy egsi réew mi ci raay jël kàddu saaga sëriñ si saaga les journalistes que vous saaga les magistrats saaga la police saaga la gendarmerie saaga c'est-à-dire avec tout ça te tamit sa voix bi mooy bëgg ñii ñëpp bëgg naa leen jiite ëllëg ma toog seen kaw nga xam ne man maay décider à la place de la nation te ñii ginnaaw yàlla bu la yàlla may boobu nongol tant ñii ngay incarné ñooy doxal ta politique tu ne peux pas être président de la être magistrat être procureur tu ne peux pas être président être directeur général de sûreté tu ne peux pas être président xoola euh, euh, euh, au commandant de la gendarmerie tu ne peux pas ni ñu yaroo catholique bi ak musulman bi ñu ñëpp on se connaît très bien réew mi quatre-vingt-quinze pour cent musulman cinq pour cent chrétien quelque que soit ce qui se passe dans notre pays masla bi nekk suñu biir société bi ni ñu gëmee wàllu diine bi yow sa combat ngay cible ay chefs religieux ñii dañ la ma dama leen war a def nii kàddu boo yëkkati ngay kilifa diine ñu saaga la ŋàññi la mais on connaît pas ça on est dans Sénégal yi ñoo war a yeewu comprendre ce qui est en train de se passer. alors Farba on bu moment jotee Maïmouna est candidat Mansour est candidat tu es libre d'aller faire sa rang choisir ton candidat. alors loolu mooy xel Farba et puis la république là toi tu veux président xam nga mooy mënu toi tu n'es pas candidat d'être président de la ba fu mu toll de yëgguma <laughs> ko sama xalaat quelqu'un qui est candidat d'être président de la république sama njàng sorul si tu dois tu devais être la première personne à défendre les de la république je parce que yaa yaa ko bëgg a jiite tu n'es pas ah Amadou Diouf fi mu toll nii dégguma ne nekk na pré nekk na candidat pour être président il est journaliste tey loo ŋaññi ŋaññi journaliste loo wax journaliste da koy naqari parce que c'est son métier et il en a choisi. un homme politique qui a créé un parti. même si tu es minoritaire tu n'as même pas 0,1 pour cent de ce pays. quand il crée parti politique légalement dem ministère de l'intérieur fournir tout ce qu'il nga am sa récépissé ci sama xalaat bu gàtt xëy na yàlla wu moo la ci wuy suwul mais tes ambitions c'était d'être président. alors Farba mais ton devoir les hommes politiques ñoom ñëpp laay waxal en commençant par man en awma parti politique mais tout homme politique qui ne défend la République tu ne te crois pas à toi-même. je ne parle pas à Sonko je parle à à tout politique la wax ak ñeneen homme politique qui sont autour de Yewwi même qui Quand tu es un homme politique, tu as un parti légalement reconnu, tu es un candidat wala tu veux président de la tu des ambitions d'être président de la République. <laughs> Tu dois défendre les valeurs de la République. Alors, dernière question. Euh,